man maa ngi tudd Mamadou Thioune nekk deuxième adjoint au maire ci commune bu Latmingué teewal fi docteur Macoumba Diouf. waaw jërëjëf euh, lii moom dañ naan du guléet euh, docteur Macoumba Diouf ku ko xam ci maire Boulat Latmingué xam ko ci wàllu éducation ndax nag moom lépp lu muy jàpp njàng ak njàngale la ci jiital mu jëlaat une enveloppe de 6 millions jaglelaat ko doomu as doomu commune bu Latmingué pour jàppale waat leen ci li ñuy wax ay cours de renforcement cours de renforcement boo ko déggee mooy élève bu jàngee ba noppi eh, heure creuse yi muy am mu mën a dem ñu jëlal ko ay professeur mu jàngal ko ñu dolli leen xam-xam pour ñu mën a def seen examen bu mucc ayib Macoumba Diouf ne da koy jël initier ko ren ànd ci ak benn comité bu am solo ànd ci ak waa IA ànd ci ak waa IF ànd ci ak chef de village yi ànd ci ak gouvernement scolaire yi mais ànd ci ak conseil municipal bi ne day jël enveloppe boo xam ne ci poosam la koy jëlee du ko laal ci budget du ko wëri fenn da koy jëlee ci poosam jagleel ko askanam mais jaglel ko ñi nga xamanteni ay élèves lañ yo xamné ne bokkuñ sax ci compétence bi nga xamné collectivité locale bi mom lañ ko jox tay ndax boy xol compétence collectivité territoriale muy mairie bu Latmingué dafa yem ci enseignement moyen bi mais ñi ñi jàppale tay dañoo dem ci école secondaire yi dem ci école enseignement secondaire yi dem ci classe 3 troisième yi wara def examen ak classe terminale yi wara def examen ñooñu tay la docteur Macoumba Diouf jàkkaarlool pour jàppale leen pour seen njàng mun a mucc ayib. waaw booy xool tey mun nañ ne juróomi école juróomi école yax am na benn lycée boo xam ne mun nga ca Koumbal am bu nekk fii ci Latmingué am benn lycée bu eh, CM bu nekk ca Caawando Koumbal Caawando Kawil du moins am bu nekk Anen mais amit ay élèves am am benn bu nekk kër Ali mais amit ay élèves yoo xamante ni dañoo dëkk ci biir commune bi di génn ci biir commune bi di jàngee ji fu mel ni Koutal Koutal bokkul ci suñu biir commune. mais élèves yooyu Macoumba def na leen da leen di jël boolewaale leen ci cours de renforcement bi jëlale leen en charge gungewaale leen ba ñoom it ñu mën a def examen yu mucc ay booy xool mbir mi yëpp ku dimbale élève daanaka daanaka parent d'élève bi nga dimbale ndax parent d'élève bi moo war a jël en charge doomam surtout nag ñu ne dafa war a jàngi ci lycée yi ak ci CM yi kooku parent d'élève bi dafa war a jàngal wala buy ut ndimbal ci conseil départemental la ko war a sàkku mais Macoumba dafa ne non comme doomi commune am lañ moom dafa leen di continuer jàppale leen ànd ak ñoom gunge leen. les parents d'élèves ce qu'ils ñu ci waroon a def en charge parents d'élèves bi les élèves mais jàppale encore beaucoup. je suis monsieur Ibrahim Fall l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Koumban. j'ai été envoyé par le sous-préfet Abdoulaye Daouda Sall pour venir le représenter à cette cérémonie de lancement relatif relative au cours de renforcement des élèves en classe de d'examen euh, des lycées et collèges au niveau de la commune de, de Ladmengue. Et je trouve cette initiative euh, vraiment très importante et qui vient à son heure euh, puisque elle permet euh, aux élèves, aux enseignants, aux parents d'élèves et toute la communauté éducative de se réunir autour de l'essentiel afin de permettre aux élèves qui sont au niveau de la commune de Ladmengue de booster leur taux, de, réussite dans les différents établissements scolaires. Bon, mon appréciation ne peut être que positive. Parce que quand on voit un maire qui prend l'initiative de faire des cours de renforcement pour les élèves se trouvant au niveau de sa commune et qui est, à mon avis, une première au niveau de l'arrondissement de Kumbol, je pense que c'est une bonne initiative et nous l'encourageons à euh, aller jusqu'au bout sur cette lancée, mais aussi nous appelons tout un chacun à apporter sa pierre à l'édifice pour que ce, projet puisse se pérenniser dans l'avenir. Bon, le montant dégagé, euh, c'est 6 millions de francs CFA, ce que je trouve vraiment intéressant, euh, puisque euh, il avait la compétence transférée des écoles élémentaires, mais il a outrepassé ses prérogatives pour prendre en charge tous les élèves qui sont en classe d'examen et des collèges et des moyens. Et ce montant leur permettra de bien faire le travail sur le terrain.